déglul ma wax la màggalug Cheikh Moustapha gam woote woon Tuuba ta baay ba jóge faa mooy niti fan ciw tam xarit bis booba la Bamba jóg Jurbel fanaan si Tuuba keroog la woolu mbay gajagaag maam bala yónni si leen ci man di màggal yàlla mu ni ma taarixal ma yow fi Tuuba magal gu may fàttali man saa baay ba li ngeen ci bëgg lépp ak li ci jublu xam nañ ko bu baax a baax parce que nañ ko ànd ndax ñëpp ko ñoom ko bokk te te te te loolu daanaka lu mun la ñàkk la ndax man noonu may wax rek yoon wi yoon wi yoon wi bëgg sëriñ bi ak topp ko moom yàlla sunu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne daa sàkk doomu aadama ak jinne ngir ñu sax ci di ko jaamu mu yónni ci ñoom ay ndaw yoo xam ne dañ leen di xamal nan lañuy jaamoo yàlla moomu kennal ko ba deesu ko booleek dara yonent yooyu nag bi ñu ñëwee ba seen mission mat tàmbalee ko ci sayduna aadama ba ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi seen mission matee ci la sunu borom tànn lenn ci ay xejjam yoo xam ne téeméeri at yone ne danañu fi ñëw ngir yeesal diine ji ba ñu tollee ci xarnub fukk ak ñeent nag ci hijriya ci la sunu boroom xeewalee mbindeefam yi ab xettalikat boo xam ne dafa ñëw ngir yeesal diine yi lislaam ji ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ci di ko liggéeyal giirug dundam. sëñ bi xam nga ne bi fi jógee léegi mu ngi war a ci téeméeri at ci at jullit. moo tax ren ñu ne woon bu magal gi ñëwee ñu fàttaliku yokk ci ay ñaan gën a yitteel it magal gi gën ko fonk ndax magal gi xam nga ne euh, Cheikh Moustapha moo ko sos ginnaaw bi sëñ bi jógee daa ko def digle ko daa def waxe yi ci war def jàng alxuraan jàng jàng salaatu ala nabi eh, tudd ci yàlla fanaane ko bët set loolu digle woon cawam sa sin la bamba dem bawam ta sin atum renam téeméer yaat bi fee si ndam yéeg na ca sangu ku samp di ko lawal téeméeri at ta daanuwul bàkk la war na say géwal yelloo nga mboolem bàkk téeméeri ginnaaw sëriñ bi mu làqoo di liggéey feneen ak léegi ci waat wolof lañ ko tënk ren di wam tachin te mu yéegoon wam sachin muy téeméeri yi nga xam ne sëñ Touba ginnaaw bi mu ñibbisee Touba ak tey ñu war ko dundalaat muy WOM Sessine nga xam ne mooy mille trois cent quarante ren war a doon mille cent quarante six. ku ñuy wax sëriñ Moustapha Abdourahmane Lo bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon saytu mbir ma ak di bokkoon ci gëstukat ya bi mu ñëwee di ci diisoo mbokkam sëñ Cheikh Gaynde Fatma daf ne ko loolu am na solo waaye. mën nañ koo xaar xaarandi ba déwén muy 1977 ndax bu ko defee mu tolloo ak euh, juróom fukki at yi ba fi sëñ bi bàyyi ko kon mu mel ni euh, looloo ab yëg-yëg la woon ab taxawaay la woon te it lu bëree bëri juddoo na ci ginnaaw bi ndax ku ne xam na ne semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba boobu jur na ñu bëree bari ñu xamutoon Serigne Touba ñu xam ko maye na itam ay gëstu yu am solo yoo xam ne ca la tàmbalee di am wala boog ca la gën di tasaaroo donte amoon na yenn yi xëy na mu mel ni kon ñooñu nga xam ne ñoo xalaatoon lu taxawaay bu mel noonu seeni njaboot seeni doom ñu mel na ni ñoo ñëwaat tey bi mu doonee téeméeri at ñu war a góor góorgóorluwaat taxawaat dundal xew-xew boobu. waaye nag nañu jëkk circonscrire. suñu waxtaan ci cadre ngir bañ a euh, désorienter les chercheurs ak les universitaires ndax gëstukat faw yow nga cadre li ngay wax ba mu xam ci ban contexte la fan la tàmbalee ak fan la yam téeméeri at gannaaw sëñ bi dafa lu bari lu ñuy jàng te lii moo ko firi mooy duma fi jóg duma dee waxtu ne maa ngi fi sama mbir day màgg waxtu wu ne te lay doxal sama mbir sama loxo bii la ne tegumoo ci loxol kenn fi dafa wal jël bi. bëgg sëriñ bi ak topp ko moom fii mu moo ko fi andi waaye taxul ñu xam ko taxul ñu dund ko xam léegi nag xam ko xam léegi dund dund ko. loolu mooy mooy mooy la ca la ca des loolu nag dëgg la amul yemaay waaye war nañ ci jéem suñu kéem kattan. mooy adee Sëriñ Bamba am ci duniya kaamil ya manaara mu gaayu bew ya ma far ko taarix ca bisu baayam ga ngir Moustapha gamoom ga mooy bisam ba Sëñ Tuubaa ci cadre bi ñuy waxee ci moom ci lislaam la lislaam nag nañu xam ne mooy lii suñu borom yabaloon suñu maam aadama mu ñëw ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon benn liggéey boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dafa doon xaatimu nabiyin wa imaamul mursalin nga xam ne li tàmbalee ci moom ba fi àdduna yam benn mission la kon Sëñ Tuubaa liggéeyam bi ngir xam ko fi ngay dugal liggéeyub abu Aboubacar mu bokk ci biir euh, liggéeyub Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dugal fa liggéey liggéeyub Seydina Omar dugal fa liggéeyub Seydina Ousmane dugal fa liggéeyub Seydina loolu mooy dox di dox xar nan fa xar di toppante ba agsi ci loxol sëñ tubaa sëriñ bi nag ni ñu ko xam ñun ñëpp mi ngi gane àdduna ci Mbàkke Bawol ci atum junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ci gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di bisub gaaw di fukki fan ak juróom ci weeru baraxlo Euh, loola mi ngi tolloog atum 1854 lay tollool. mënees naa jàpp na ñim jànge xam-xam ci luñ xam suñ ma doon seetlu waajuram euh, suñ sàmbatu kuloor ka di bàyyam bu ndaw ak daymaan yi moom mu nga xam ne moom doon jànge ji ca ca njaañ euh, teel a ràññi ko lool yi nag ci xam-xam ndax doy na sëkk ci di teel a ràññi ko ci xam-xam jàppees na ne sëriñ bi ci natt tàmbali naa taalif ay téere te bi mu koy tàmbali booba ñaar fukki atam matagut loolu ak ràññiku la jàppeef na lool ne lu mel ne téere bii di na nafis sëriñ bi bi mu koy taalif ak ya jiitu woon ndax téere bi mu njëkk a taalif ci téere xam mooy mu lay yunu sudur loolu sëriñ bee boppam sëriñ Mor Lamine ñett la ko ci anub zan baraka yooyu bi koy taalif booba sëriñ bi amagul ñaar fukki te booba euh, teel a jàmbaare ci xam-xam moo ko may Maamoor Anta Sali làqu te fekkoon foofee doonoon lu ñu mën a tudde tey ab université parce que discipline yi bokkul lañ fa doon jàngale tawxiid fiq tasawuf naaxu siira lépp lañu fa doon jàngale foofee ca barab boobee moo tax te niveau bu kawe lañ ko doon jàngale fa la bindee comme niñ ko xamee Mawaahibul Xuddus Maamoor Anta Sali yoroon ko wàcc liggéey bu mu wàccee liggéey nag sëñ bu wéel njàng ma waaye ba mu wàccee liggéey ca sa ca saa sa la ñennat gaaral sëñ bi ne ko kon ñëwal nekk conseiller Lat Joor sëriñ bi gàntal ay baat jib li ñuy wax rumeur neex amaana xel mi dafa dem ngir baay bi làqu ci niñ ko nangoo ci ñennat ci xisa yi ba sëñ bi tax mu bind xaaloo li yarkan li abwaabi salaatin nee nañ ma jàngal ba ba xasida jeex waaye dafa doon gën a yaxal moom refus catégorique par rapport ak nekk conseil Lat Joor jublu yàlla la ci jublu ne mënoon naa nekk conseil Lat Joor booba ndax Lat Joor buur am wàccuwaay la woon ci àdduna booba. bi mu woote yoon wi yàlla boole kook ay gaayu yu dëggu te dëggal te topp ci moom nangoo matu doon ay murit mu di leen tarbiya di ànd ak ñoom ci barab yu wuute fu mel ne Mbàkke Bawal fu mel ne Daaru Salaam ak Tuubaa ba ni mu demee Mbàkke Baari diggante boobu yépp li mu seq ak ñoom mooy di leen yéege di leen defar di leen tarbiya ak di leen jàngal képp ku mu noppi ci yow boole la ak nga def ca mbooloo ma la ma def ci yow. sëriñ bi bi yàlla dogalee mu am ndigalul boromam ci tarbiya dafa dajale njaboot gi waxtaan ak ñoom leeral leen ndigal lim jële ci boromam képp koo xam ne nag euh, mën nga àndak moom ci li ko tax a jóg bismillah koo xam ne nag euh, njàngum kese kese rek moom moo la tax a jóg euh, foo ko mën a amee moom jàppandi na. léegi nag euh, ñay dem dem ñiy toog toog sëriñ bi nag doog a sóobu ak ñoom ci yoonu tarbiya ni nga xamee ne ni la jaayanteeg moom ci loolu ni nga xamee ne ni la saxaaba yi yonante bi sallallahu alayhi wasallam jaayante woon ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci di ko topp kon loola la yeesal loola mus loolay lislaam euh, ginnaaw yonante bi xëy na loolu bëree du mën naa ne raafoon na jaayante waaye loolu la dekkal loole nag ci la def lim def lépp kon mën naa ne sunu borom kon mi ngi sant sunu borom ci xéewal lim ko defal li ci jiitu mooy dundam gii nga xam dafa barkeel ak jifam yu barkeel yi jëf yu barkeelee bari na lool lool lool. noona ci noonu la doon doxee ba ni nga xamee ne ci la gisee pàkkub Touba daal di koy sanc ci atum wasasin muy 1306 ci gàddaay bi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di war a toll ci atum 1888. Euh, bi mu ko sancee moom it ak lam ci wax lépp ci doon gum doon barab boo xam ne suñu borom ak ko tànnal ak lam ko ci daal lépp ci njëlbeen gi wax nañu sëriñ bi am na fa juróom benn weer yoo xam ne nekku faak njaboot gi waaye dafa bàyyi njaboot gi boobu ñoom ña ngi daaru salaam ba jamono jooju benn benn rek ci donga yi ñoom la nekkal foofu ci Touba euh, euh, def fa ab mbaarum ngeer moo xam ne ci la dëkk nekk ci ak ñoom jamono ji nga xam ne ci la joxe ndigal nag ñu jëli njaboot ga ñu ñëw ñu ñëw euh, fekk si ko ci dëkk bi muy Touba. Touba googu it sëriñ bi wéyal fa ndax manees naa wax ne ci mujjug Daaru Salaam jëm sancub Touba ci la sëriñ bi wàccee kuréel bi njëkk ci ñim njëkkoon a tarbiya foofu leen wàccee euh, ci ne ko sëñ la Lamin Jóob da nga na waxee. man sama métier mooy nekk mujaahid te noonu bi ma gën a jegeñal moo di bakkan. saytaane ak àddina ak bànneex ñii lay wut ñu ma jàppale nu xeex leen waaye nan leen xeex nag bil ulum nanu amee xam-xam bu doy sëkk di ko jàng di ko jàng daal di ubbi daara yebal ca mag ña ñuy jàng mën a jàng lool wa bi tuqaa ñam fa yebal ñu amee ragal yàlla du ñu tooñ seen boroom du ñu def sax lu ñu sib du ñu bàyyi dara ci ndigal waxuma la farata waaye lu ñu sopp duñ ko ba eh, ñi nga xam ne da leen doon tarbiya nag bil maqaal mooy ñi nga xam ne dañ daan ñëw buñ dikkee sëriñ bi eh, jox leen lam leen di jox wax leen lam leen di wax ñu delluwaat ne ca loola ba ba waxtu dellu si jot ñu dellu siwaat ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër gi nag sëñ Moudou Lamine nee na sëriñ bi moom bi mu leen di tarbiya dafa am méthode bu mu amoon boo xam ne façon yu wuute la woon am na ñoo xam ne ci xiif rek leen doon tërbiya leen doon xiif loolu ku ne xam na ne bakkan moom mooy dominer te bakkan xiif rek moo ko mën a not sëriñ bi nag doon leen tërbiya ci xiif loo nga xam ne ginnaaw ba moom lam ñu jàngaloon mooy moom yoon wii mu sóobu te teeloon koo teeloon koo bëgg te daan sóobu ci yoon woowu muy alxawmul mutasawifa moom leeral na ki nga xam ne mat na cheikhul murabbi maanaam sëriñ boo xam ne maanaam am na ahliya ci mën a euh, tarbiya day doon koo xam ne bokk na ca melokaan ya muy làmboo yaral xafaaya bi aynal qalbi zahiratan kama yushahidu ma tahta al akinnaati dafa bokkoon ci ni sëriñ bi doon yare mag ñi dindi li ñuy tuddee classe catégorie ci nit ñi maanaam affaire gëm-gëmu raas wala kii moo war a métier yi kii moo war kii ya war a jàng kii lii la war a def yooyu da ko doon dindi ci mag ñi nam ko doon dindi nag anam gu am solo la ndax dañuy day daan fekk koo xam ne dañoo jàpp ne kii doomi soxna la joo xam ne jàng ak jàngale dong moo war a doon métier mu seet lañ jàpp ne métier am la métier am la mu jox ko loola mu di ko liggéeyee kañ jàpp ne ab uude la boo xam ne feesak euh, ëw loolu rek moo war a doon métier wut a xam dara mu samp ko moom lañ jàpp ne métier am doomi soxna la mu féetale ko foofu. ceddo yi di teg euh, ay jafe-jafe yu méttee taalibe yi. am ci ñoo xam ne sax dañu leen génne seen dëkk yi nga xam ne fa lañ dëkkoon ñu jànkonteeg ay coono yu méttee méttee métti mbooloo moo xam ne dañ leen génne seen i dëkk ñu jóge fañ dëkkoon ñëw fekk sëriñ bi Touba euh, muy xew-xew yu méttee métti yoo xam ne neexut a waxtaane lool. sëñ bi dafa mel ne lisaanu xaalam dafa am bayit mu doon sàdd bayit wu fi yàgg la istaxni bi diini an duniyal muluki kama staxnal muluku bi duniyahum ani diini waaye kat ba dane niti àdduna yi buuri àdduna yi niñ doyloo seen àdduna ba amuñ soxla ci diine yow mi nitug diine na nga ko doyloo sa sa diine bàyyi leen ak seen àdduna sëñ Tuubaa noonu ci loolu la nekkoon daawul nangoo jaxasoo ak ñoom daawul nangoo jariñoo dara la jógee ci ñoom ñaar yooyu la boole woon ñaar yooyu la boole woon gis nga lam ton tontoon Sambalaw bi Faal sëñ Bachiru nattali na ko ci téere bi ne sëñ Tuubaa ko ko nattee Sambalaw bi Faal dammelu Kajoor la woon di jarbaatub ci Maam Mor Anta Sali la jëkkee sax ngir sàkk sëñ Tuubaa ànd ak moom di ko àtteel nee na ba mu ñëwee nag sàkk ko ci sëñ bi Maam sëñ bi sëñ bi ne ko dama yor doomi jàmbor yuy xam lu seen diine te mënoo ma leen fee bàyyi dem loolu xalaatuma ko sambalaw ba yëkkatiwu naaru góor jox ko ko addiya nee na fekk am na ñett ñu ko topp di ko fay yu borom ñetti téeméer ñetti jullit mu jaay naaru góor fayal ko borom boobu jaay ko ci ñetti téeméer fayal ko borom boobu ne ko ba fi ne nii sàmbalaw bi yëgul na defal naa ko loolu sëñ Tuubaa kon jaxasoo gi da ko daa bañ di bañ jaxasoo di bañ jariñoo lépp lu jóge ci moom. sëriñ bi dafa tagg borom bi subhaanahu wa bi jamii sifaatihi allaa'iqa bihi melo yi nga xam ni yàlla meloo woon na ko te turam ya tegtale ko daf koo tagg sunu borom subhaanahu wa ba benn desu ji am na xasida yoo xam ne day indi tur yépp kon jox na yàlla haqiqatan la nga xam ne nii moom la yàlla yelloon dem na ba ni boo dee xalaat sax yow mii xalaat ci yàlla danga nga juum waaye deel xalaat ci mbindeefi yàlla yi mbindeefi yàlla yi la ñuy xalaat waaye am maa jëmm yàlla ja nag nii lay mel ak naa lay mel kooku kenn du ko xalaat ndaxte yàlla na mu mel romb ne mbindeef doomu aadama mënta misaal lu mu xamul kemam te yàlla amatum kem laysa ka mislihi shay amutum kem te mënulaa misaal lenn lu amutum kem boo may misaal lu gudd danga may jox leneen lu gudd lu ma koy xoole boo may misaal lu diis danga may jox leneen lu diis waaye yàlla nag lu mel noonu la amul moo tax sëriñ bi bi mu koy tagg daf koo jox ni ko rek mooy koo xam ni xel mënuta làmb ba daj ku mel noonu rasululaahi moo ca topp 1311 ci la jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ay sasin waaw ci la jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ubaayiu al yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalu llah al wafa ba mu jaay ba bi nag sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci majmua bii ne bi fi ca ca euh, fi Maamar Anta Sali jógee rek ca déwén sa ci la am yéene aju ci yonente bi sallallahu alayhi wa wa qalbuhu admaraha min asasi waaw maanaam maanaam xid nag liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi nee nag suñu borom mi ngi ko dogal nag ci jëy sachin mooy mille trois cent mooy bi muy dem ci géej gi bi nga xamee ne aju na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam xam ngeen ne sëriñ bi moom ku fonkoon yonent bi la ku ko maanaam ku jeexoon ci yonent bi la sallallahu alayhi wa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa mooy léppam mooy wéeruwaayam mooy ki nga xam ne nii euh, dama koo bëgg ba lu mu bëgg bëgg na ko lu mu bañ bañ naa ko moom it safaan ba noonu la demee kon sëriñ bi jox na ak xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melal yi mu ko melal bari na ba kenn mënta am melo yu toog noonu àgg sax mel ba ku doon léegi de damay wax ni dafa mel ni ku bëgg a saaga laxat maana لقد مان من سن المقفى محمدا يحاكي وليدا xat ma daa aw sa yuulatu nee na ki wax mi yonent bi am na ku mu nirooloon démb mbaa tey mbaa ñiy bëgg a ñëw ku njëkk ku mu ju nee na kooku waxoo dëgg sëriñ bi kon jox na yonent bi ak xam joo xam ne nii amul kenn ku ko mas a jox rasulullahi sallallahu alayhi wa tax na yonent bi may ko summil ko lim ko summil kii daraja ay daraja yu bëggeel ak cofeel di ko yonent bi jaral sallallahu alayhi doo gis kum ko jaral léppam itam da koo jëloon jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa gis nañ mu wax ne jumlatu maali wa midaadi wal qalam hadiyatun lil mustafa dégg nga baabi niam juttu lahul jox naa ko lépp li ma am moom rasulullahi sallallahu alayhi ba ci xalimaak daa yi may binde teewul mu di ko limaat jox naa ko sama ruuxuk bopp jox naa ko sama jëmm ji jox naa ko sama njaboot jox naa ko samay waajur jox naa ko lépp xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila xululi ramsi nga ne jëmmi liggéey bi muy liggéey itam nee laa ko jox moom laa ko defal addiya kër yim amit laka yaa nabiyu manazili wa mawatini wa mawaadii laka bil ali mutaawida mooy samay kër ak sama baay sama bërëb yëpp def naa ko addi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wal digganteem mag yonent bi it sallallahu alayhi wa sallam mu doonoon diggante boo xam ne mën nga ne léppam dundab gépp la ko joxoon ci di ko liggéeyal di ko tagg di julli ci moom di def mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne mi ngi koy def te di ko jaare ci moom sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la sax nekk ca ba mel ne loolu sax bokk na ci li sabab génne gi nga xam ne moom la ko ay noonam génne exilé ko yóbbu ko ci réw yu sore ya bi juñ na ki ñu naan moom lañ leen woowee docteur muy docteur Clarac te mi ngi ci euh, jury bi mi mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci bateau mi ngi ci ñi doon dem ci bateau bi sëñ bi junj ko kon kookee bind na ci mémoire am moom ci ni tubaab di baaxoo bindee ne am na lu xew ci bateau bi c'est évident tubaab noonu dañuy bind ñoom kon docteur Clarac bind na ko mais euh, français yi fex nañ ba nëbb ko colon yi nëbb nañ ko. wala bokk bokkul ci li ñu war a déclassifier Gabon jagle xam nañ ko muy suul bañ ko suul te sëñ bi bind ko muy taal gi ñu ko doon bëgg taal te sëriñ bi bind ko muy fetal gi ñu ko doon bëgg fetal te sëriñ bi bind ko muy muy mouche zz ko yóbboon ci sëriñ bi bind ko waaw waaye la xew Gabon ak détails yee ca war yëpp moom tubaab yi nëbb nañ ko fi mu ne amuñ ca dara lu dul sëñ bi junj moo bind ca suul ba rajama rabbi maadu yaxfar li darari wa sànni ani nafar sëñ Tuubaa ko bind ku ne xam na ni moom dundam gépp dafa fees dell ak ay nattu te natt yooyu la ci ëpp jëmmi boppam ja taxut am na ca yoo xam ne ay daraja yu bëggoon ci digganteem ak boromam la mu doon daraja yu seer yoo xam ne njëgam xëy na ay natt rek yu suñu borom teg ci sa kaw moo la ko mën a mayati ndax lu ci baree bari faatoon na waaye am na ci ay natt yoo xam ne doon na ko tegoo ngir askan wi doon na ko tegoo ngir doomu aadama yi loolu nag kon day wane ni moom bàyyi woon na xel nit ñi ci anam gépp te loolu bu ñu xoolee tukkib géejam gi nga xam ne daa gën a fés ci nattu yi nga xam ne mu ngi doon tege ci kawam ndax ku ne xam na ni lépp ci ak dundam moom wax dëgg yàlla ci ay loxo la nekk yoo xam ne tënku bàyyi wuñ ko mu am liberté bàyyi wuñ ko mu doxee na mu bëgg a doxee ci digganteem ak boroomam ak ci digganteem ak doomu aadama yi am na ca loo xam ne nag day mel ne euh, bëggoon a sowe ñi mu jamonoon ñi mu jamonoon teel bëggoon bëggoon leen a fàggul tax ak àdduna ak alaaxira bokk na ci la ko ko teg. waaw julli géej gi. bayit bu njëkk ci midaad yi muy midaad yi wa aqlaami liman zahzahal yamma kama zahzaha sheytaan wa jahala waxamma dafa am ay baat yoo xam ne boo ko toppee dina la jox piste. daf ne sama daa ak samay xalima ñen la ki nga xam ne repoussé na ma ndox mi. ça veut dire quoi ça repousser la ma ndox sëñ bi toogal ci garab ne sëñ suñu borom repousser la ma ndox bi dafa war a am ay circonstances yu daje ngir mu jëfandikoo baatu zaza boobu te la ca kanam moo lay woon nekkoon effectivement dafay conforter baatub julli gi ci géej gi mooy njàqare xamaa jooju anxiété anxiety ni ko anglais di waxee kon am na lu xew mu soog la ko jiitu mooy baatu seytaane musal na ko seytaane kon baat yi boo dajalee baat yi dangay war a mën a def yow xëy na ci sa xalaat bu xóot ak ni sëñ bi wàccuwaay bi sëñ bi am ci boroom da ngay war a xam ne kon am na lu xew ci bayit wii léegi nag bi ñu defaatee xalaat ñun gëstu boo xoolee midaad yi boobu dafa fees dell ak tawxiid maanaam bayit wu njëkk boobu. génne yooyu ñu ko génne ci réew mi ku ne gis na Gabon la mu fa daj. ci juróom-ñetti at yu manqué yoo xam ne sëriñ bi nee na toll na ci diggante yoo xam ne lu dul ruugu rocc ko rek daj na ko ci mettit ak coono ginaaw bi it yóbbu nañ ko Mauritanie gi nga xam ne lañ ca jublu woon weesuwut fexe nañu yàqee ab wooteem kon ñu yóbbu ko Mauritanie euh, Mauritanie nag doon étape bu am solo ci nekku sëriñ bi moom ndax sëriñ bi jëm ma waxal boppam ne man zanna sayri ghibba ami aksasi mithla masirira sa ami jaysasi sabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tatibul ali lil umra lam yakku sayru ak si siwa jaza man li yaqaada baadu waadan an jaza wax ne képp ku njort ne sama demuk sama demuk ak gi gii muy 1903 di dem gànnaar moo ak sama demuk géej ga yam mooy sam xel guddut te dara daan ne ndax demuk ñaareel bii mooy demuk gànnaar gi ak pay la ca mujj koor ga ca la ko yonente bi aleyhi salaam dikkal jox ko al wérdul maaxuus bi nga xam ne mooy wérdu yoon wi nga xam ne mooy jëkk jox gu jëkk gi mu ko jëkk a jox ca guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci laytu xadar ci atum ak ses 1321 ba mu ko joxee bi sëriñ bi jeexalee xalwatu i'tikaafam ba koriga ba ca juróomeelu fanu koriga di bisub ajjuma ci la génn wérdu wi joxe ko ki mu ko njëkk a jox ab taalibeem la boo xam ne naaru gànnaar la muy Cheikh Ahmadou ibn Hasan bu dee wérdu wi yàlla ci moom moo ko jox dégg nga jaarale ko ci ci ci yónnante bi sallallahu alayhi ci lu dul ay nelaw nee na moom ci moom mu jëfandikoo ko ne képp koo xam ne aju na ci moom nanga koy jëfandikoo sa diiru ngay ci kaw suuf wax ci itam ne ku koy jëfandikoo faw di nga tàbbi àjjana te kenn du la xisaab mooy kenn du la jënd sa mbir kenn du la sonal itam bilaa xisaabin wala iqaabin kenn du la mbugal kenn du la sonal doo am benn jafe-jafe kenn du la laaj dara loolu sëñ bi lu maanaam maanaam tawfeex gënu ko gënu ko kawee ak itam li mu wax ne ki koy jëfandikoo faw dina am islaam ak imaan ak bu leer nañ te du am jafe-jafe adduna yu bari te maanaam suñu borom dina ko musal ci mboolem moom moom moom moom yi ay ay ay nga xam ne moo nekk ci kaw suuf kutub liman ahsa جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساء يقبلا اغفر لكل من عيدي ما لا وعن يده لا تزحزح مالا اغفر لكل من عيدي مالا وعن يده لا تزحزح مالا ni xadit nekke ci digg alxuraan 57e chapitre Sëñ Tuubaa nekk ci digg centre l'islam nga xam ne mooy moom autour de sa gravite toutes les mouvances spirituelles dafa yéeme moo tax moom mooy xaadimu rasul gi sëriñ bi yeesal na ci fànn yépp yeesal na ci xam-xam yeesal na ci tarbiya noonu it la defee ak yeesal ci alxuraan liggéey ci liggéey boo xam ne ba àdduna sosoo ba ci jamonoom kenn mës sa gis lu ne mel. fi mu fekkoon alxuraan fekk na daana wax ne dëgg la fekk na ah, waa senegal di foyee alxuraan naam noonu lañ ko mën a tuddee ndax laawaan yeeg yi ñu doon def. da ngay gis koo xam ne day sol tubuy ju gudd gudd gudd di ko ñu ne kaang maa ngi nii fu mu jaar ñoo xam ko fu mu àgg mbooloo wër ko ñuy caaxaane alxuraan léeg-léeg am kaang moo xam day taxaw taxaw cib kaamil ne kaamil bu taxaw cib kaamil laa ndax damaa gis koo xam ne da koy ngeeganaay yow wala mu tëddi yooyu yëpp sëñ bi nee na liñ doon def de doy na waar waaye nag mëtuñoo wax dara ndax ñoo ma ko téyeel ba ma jot ci te ko moom man la keneen quraan rabbul alamin suñ borom da koo jox kon dañ ko koo téyel ba mu egsi waaye nag ko jot ci sa alal nag na koy fonke du bokk ak keneen ku ko yoroon te du alalam moo tax bi sëñ bi egsee xam alxuraan ci boppam xam na ne sëñ Tuubaa ñëw na ndax bari na looy gis tey jii ci alxuraan sëñ bee ko ci def masalan wutul koy fekk guy rafet di bind turu yàlla nga di ko xonqal fu ñu egsi ci turu yonent bi ñu wertal ko mbind mi nga ñuulal ko masque yu xonq tomb yu pour mel ne lu mboq mu ñu amee waqaf ñuy res ñuy respecté xumus yi ak enchères yi den di laay di ko di ko di ko di ko di ko am nuñ koy binde loolu bi amutoon ci kaamil di jëkk yi dañuy bind alxuraan nañ ko manee rek tàmbali eh, benn baat fii àggalee ko fee day mel ni alxuraan bu fekkee am na ay teggiin teggiin alxuraan suñ bee ko ci andi woor may alxuraan suñ bee ko andi projet de société wu sëñ bi euh, li tax dafa nuroowul sax ak baatu projet de société bi ñuy wax nii dans le sens idéologique du terme parce que projet de société ñi làmbatu ñooy taxaw di wër di seet fan la ñuy jeexee projet de société waaye sëñ Tuubaa moom ni yonent bi saa salaam def la def àdduna ak àllaaxira la boole xam àdduna képp le plus peu le moins àllaaxira bu ñu fa demee dootuñu fa jóg. dëgg la de sëñ Tuubaa ne la boo la bu mu lay duyal sa ndabu àllaaxira ndax mënut a yàlla du duy ndab lu feesul du duy ndab lu tuuruwut liy tuuru rek mën naa yor sa àdduna bi wala tan sa la la wax wala tan sa na si ba ko mel ne duniyaa nga koy def projet bële moo am projet. kon boog projet baa ngi noonu dekkal li li li lii la kon boog ci tënk rek ma des na ne Touba gi ci boppam rek réalisation sëñ bi boo ci waxoon Touba dong rek mu kon ci biir jàngat yi téeméeri at sëriñ bi nga xam ne dañuy jàng dundug sëriñ bi dañu ko waxee muy dund gu barkeel sos goo sos dëkk bii te te lii li rek tax mu meññeet lii loolu rek defe naa ne lu am solo la loo xam ne nii boo ci yemoon képp te dara génnul loolu. sëñ Tuubaa lim ñu bàyyee wërsëg moo ci gën a tuuti ngëm moo ci ëpp doole ak njub moo ci ëpp doole loolu buñ ci góor góorloo li ci des day ñëw. moo tax sëñ bu Mbacke bu baax ma daan tënk ñaari baat nee na yàlla suñu boroom jàmm bu ne taqale na ko ñaari biir benn biir bi mooy sa biiru jëmm nee bu mu la yitteel yàlla bi la booleek moom warlu na la lu mu ci def sa biir bàmmeel nay sa yitte ndax loo fa deful doo ko fa fekk noonu la sëñ Tuubaa doon yare mais bëgg a concentré wu ci développement dans le sens contemporain du terme alors que développement eh, danga daan gis ñi nga xam ne dañuy liggéey ba am alal ju dul jeex attan koo joxe ci benn bis ñu war laa former ci lan tanaalu birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun loo am mun koo joxe kooku bu ñu la ciy former duñ la définir le développement nga jàppee ko ne euh, c'est des biens matériels. Euh, suñ bay jaxate li mu wax naan fii jant bi fenke ak fa muy xel soowee yilif ko ak laxasu yalwaani laa yamale dëkk boo xam ne nii xam-xam ko tax a jóg waaye nag waxuma lu baax lu ne da ko tuddee matlabul fawzayni Touba buñ ko tuddee dañ naan matlabul fawzayni matlabul fawzayni mooy firi Touba rek miim gi barab lay firi miim gi barab lay wone talaba taalib gi mooy ay taalibe mooy li ñu doon nun fawzayni mooy li ñuy loolu lu mat a jàngat la loolu moom yomb na nu fi ndax ay taalibe la nun kon boog li ci boolee nun mooy daa am lu ñuy wut nun li ni wut si mooy lan alfawzini la noo texeel àdduna ak alaaxira alhamdulillahi alkarimi dil minan ala ishtighali bi furuji wa sunan alhamdulillahi alkarimi dil minan ala ishtighali bi furuji wa sunan shakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maaqani wa qaadani ilayhi bit tahalli من بعد ما هزم بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم nekkete xeex taxut a taxut a gañab xare de nekkete pexeel doomu aadama ak di ko xañ euh, ak xam te taxu taxut am ndam de nekkete tooñ taxut a mucc de nekk fayu tooñ it amul njëriñ de nekkete noonoo ci biir nit ñi mayewul dara de nekk ay pexe it mayewul dara lii maye dara mooy da ngay féete yàlla yàlla suñu borom képp ku mu ne inna laa ku mu wax loo ne la inna laa maanaa te muy dëgg bu la nit ñi songee dinañ xam ne ku yàlla àndal moom dee su ko song di ko di ko fexel wallahu yansuru nii wal xalqu tadbahu nii fil barri wal baxri zanafin bi laa dara nu ñu gën a dem nit ñi dinañ gis ne nekkati sëñ Tuubaa mii moo ne ci li rasulullahi sallallahu alayhi bëggoon sëñ tubaa mii nekkate moom nekku fi pour la ay tarixa nekk sëñ tubaa mii xàmmeewul ki ki ñëw jox ko boppam ak ki nekk feneen te ñëwul sax gis ko mu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal yokkute ak di ko ñaanal mucc ni mu koy ñaanalee ab taalibeem koo koy sëñ Touba. boo doon portale sëriñ bi loolu moo di portaleem mooy jëmb ji ñëw ci kaw jamono ne fi ba noppi koo gis te muy njariñul kese. te mës a lor kenn loolu mooy Serigne Touba. Serigne Touba looloo taxoon muy ñaan yàlla mu def ko njariñam mel ne ab taw taw ku ne xam na ni mu baree njariñ bi jaahi li habli niama wa naf yajaal mithla ghaythin karama dem na ba wane ne yàlla may na ko loolu defal na ko muy njariñul taw damma kitaabati li amali sihaab man qaada li bila adan nafa sahaab yàlla defal na may njariñul taw waaye bi laa ëddan nag ci lu dul lor xam nga taw moom buy sotti dana am njëriñ waaye léeg moo mu ànd ak lor mbënd ak dënnoog yu mel noonu moom nag bi moom njëriñu la àndul la la ni bay si woowu ku mel noonu nag doole ja bari boo ànd ak rek du baax moo tax daa nafaxan bi laa dara di sëriñ bi waxoon na ne moom njëriñul kese la ci nit ñi xéwalu kese la ci nit ñi loolu suñu borom moo ko def day mel ne sax maanaam wax gi da ci am ndigalul yàlla maanaam yàlla moo ko digal maanaam sëriñ bi moo daa wax ne sama boroom moo ma digal ma leeral ni nit ñi maay seen wéeruwaayu àdduna maay seen làqatukaayu àdduna maay ki nga xam ne képp ku bëgg yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira bayabo nga ñëw wéerus ci man loolu moom lu sëriñ bi wax la ne boroom subhaanahu wa taala ci boppam moo ko jox ndigal ci ne ko leeralal loolu amarani rabbi bi an usarrixa bi annani malaadun wa mafzaa fa man araada al xayra fii kiltayi daarayni falyalus bi kon loolu wax ju leer la sëriñ bi wax ne law alima naasu bu fekkonte nit ñi xam nañ maa huna li ne fii la baadaru ila talabihi kon ñu gaaw ci sàkk ko talab ñëwaat na walakin mu ne waaye lamma jahiluhu bañ koo ko réeréet talabu xayrahu ñu sàkku leneen kon boog barab ba ngi nii boo xam ne nii barab boo xam ne sàkkuwaay la lu fi mën a sàkkoo kon Tuubaa rek sax boo ko doon fi neel barab la bu ñuy sàkkoo taxi àdduna ak alaxira ni yonent bi sa salaam amee woon al yawma akmaltu lakum diinukum ak la ca topp ci ngërëm lu ko suñu borom defal looloo topp ci loolu moom moo topp liggéeykatam bu màgg bii di Seexuna Ahmadul Xadim moo tax mbiram téeméeri ak ginnaaw bi premier centenaire bi ñu jëkk évaluer tey jii boo koy xool wet yépp dangay gis ni tableau bi reluisant yi ni mu rafetee. lu baree bari itam. Euh, ci ay réalisation tàmbale ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo ko wutu ginnaawam ci dajale mbooloo mi ci nos ko wàcc fexe ba déggoog yépp ba liggéey bi mu mën koo taawu ba tey jii mu jox ko jotlante ko ba tey mu agsi ci loxo bi mu agsi muy Cheikh Mouhamadul Mountakha muy ay réalisation yu rëy rëy nag yoo xam ne ku ci nekk ci fa nga féete taalibe yi kilifa yi ku ci ne am na loo ci dolli mu mel ni kon taxaw euh, def taxaw seetlu da ciy am solo mooy lii nu ndono li nu Serigne Touba bàyyee boobaak léegi na nuñ ci def loolu mooy laaj bi. dunduk Serigne Touba gii nga xam ne kéemaanug yonante bi la sallallahu alayhi wa ci la ko yàlla dimbalee ba mu taxawal raayaw lislaam ba mu dëgër yëkkatiwaat ci bu baax der bu ñuul ak tedd ak doomu aadama. te liggéey bi bépp nag doon loo xam ne téeméeri at ginnaawam laa gën a wéy di gën a dëgër te lépp nag njàmbaarug ñi nga xam ne ñoo ko wutu ginnaawam di ay donoom di ak njabootam di ay taalibeem ak xalifaam yi nga xam ne ñoom la bàyyee mission boobu ñoo ko taxawal. téeméeri at yooyu nag yoon wi doxane ci noo xam ne bu yoon wi doon benn ba fi sëñ bii door a jóge léegi téeméer la li koy firndeel ba ñu indi sëñ bi Tuubaa ndigal la ma tax ñu indi ko fi. waaye du luñ gis ci dëkk bi ci Zahir li fi newoon ci kër matul fukki nit fukki kër ñu néew néew lañ ndox mu naan amu fi waxuma laa muñ toggee jafe-jafe yëpp fi ne amutu yoon waaye sëñ bi ne fii laa bëgg ñu andi ma fi fii la ma sama borom tànnal yu jëkk ñu baax ñoo ñee nga xam ne ñoo ko njëkk a topp am ca moom lañ am ci moom te kenn du ñoom loola di dox mosu fee jóg ba ku ko wuti nañ ko wuti woon am lañ amoon loola di dox ba tey jii. waaye boo doon natt tubaa fukki këram yooyee mu amoon te ji ñaata kër la kenn mënu ko xam ñaata nit la kenn mënu ko xam waaye xamal ne daal fukki kër yi lim jur ci téeméeraat yi léegi àgg na trente huit mille wala trente neuf mille hectares yoo xam ne ci titre foncier bi la waaye am na lu ko ëpp lu bokk ci titre foncier bi lu bokk ci Touba kon trente neuf mille bu demee ba fukki téeméeri at fukki kër dem ba doon trente mille hectares yoo xam ne titre foncier la nekk ci loxol kenn nit muy sëñ Touba. loolu ku ko doon xool danga xam téeméeri at yi lan moo ci yokk. loolu moom dafay tàmbali ci wàll yépp wàllu gu nekk rek yoon wi dox na fa doxin woo xam ne mënee su ko xiyaas mënee su ko xiyaas mësee su ta gis itam lu nu mel ci àdduna ndax loo xam ne téeméeri at la ñuy soog a wax tey ak jéego yi nga xam ne boo ko doon méngaleeg yeneen foofa ay nangami téeméeri at ngay wax wala ay junni at ci wàll yépp nag wàllu goo tudd rek ndax xam-xam moom day lu am solo ci jullit. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom daf ko yónni woon ngir mu jàngal nu wallazi baatha fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim wa ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaab wal xikma wa yuallimuhum kon sallallahu alayhi wa sunu borom daf ko yónni woon mu jàngale mu ñëw ne innama bu'istu mualliman occasion bi ñuy war a tiire ci euh, centenaire bi moo di xool wone liggéeyub Sëriñ ci téeméer at yi liggéeyub sëñ Tuubaa nag boo koy wax da ngay boo ko waxee liggéeyam ba noppi da ngay wax liggéeyub ñi nga xam ne ñoo ko wutu ak ñi àndoon ak moom te loolu lépp da nga koy versé ci liggéeyub sëñ Tuubaa faw nga tudd Cheikh Mamadou Moustapha dañ ko waxan ci tàmbali bi jumaa ji ak woofu njaboot ga ak sañ ci ay dëkk xosnul ma dëkk yi ak yëpp yu mel noonu yaatal lislaam yi Taïf ak Iraad ak nangam yi nga dëkk bi di dox di dox ba yegsi ci Cheikh Mahamadul Fadil bi mu mottalalee sëriñ bi jumaa ji nga xam ne Cheikh Moustapha moo ko tàmbali woon lim fi njëkk ubbi mooy daarul maarif al islamiya ba tey jii alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ alhaaji Mbàkke jaxate mi nga xam ne moom la fa tegoon muy jàngale ba tey jii njàng baa nga wéy na nga xam ne noonu la tàmbali woon waaye yaatu lool bari na ay daara yu baree baree bari yoo xam ne ci daara jooju yi la ñu sosoo muy daara ju barkeel ju mag ju yaatu muy wéy di wey ba Cheikh Abdoulaye Lahad fii nu toog tey moo ko euh, miire woon bàyyi ko fi muy lu yéeme ba fi mu nekk nii tey bu fi nekkutoon ku bëgg a def lu toll nii danga sori lool fanweeri hectare tudde woon ko université Cheikhul Khadim kon tur mooy dox ba nëgë ni Serigne Touba liggéeyal boromam ci dëgëral màndargay lislaam ba boromam fay ko ci lu kawe loo xam ne yenn yi sunu woroom defal nag ko ci nekkam yeneen yi di ay réalisation yoo xam ne ci ginnaawam la sottee ci domaine yu wuute moo xam ay jàngkaayu alxuraan la ku ne gis na université bu mag bii nga xam ne kii ko fi nekkal tey di Cheikh mu taxa moo ko taxawal bokk ci naal yi gën a mag ci yoonu murit naka noonu it jumaa ju mag jii nga xam ne murit yi ñoo ko taxawal mu bokk ci jumaa yi gën a mag ci Afrique. ci at yu néew ginnaaw boo xam ne kilifa yi jiitu yoon yëpp ku ne am na loo ci def tàmbale ci sëñ Saaliwu ak Alaaji Baara ba ci Cheikh. Seydil Mokhtar mi nga xam ne mën nañoo wax ne liggéey bi li ci ëpp wala bu ñu waxul lépp sax moo ko taxawee muy lu am am solo fii ci Ndakaaru rawatina fi ñu ko def fii ci Ndakaaru parce que mooy capital bi euh, may na ñu bëree bari ñoo xam ne daa ñuy faral ñëw ci réew mi euh, même ñoo xam ne du ay ay jullit li ñuy ba am ci ay visiteurs nombre bu bëree bëree bari la ñoo xam ne ay ci yeneen pays musulman yi lañuy jóge te di ñi ñëw di yéemu ci li fi xew donte ay jullit lañ bu yàggul rek am na ministre boo xam ne mi ngi jóge Malaisie te ku ne xam ne Malaisie ni mu demee ministre affaires étrangères ba ñëw na fi seet si barab bi yéemu ci lool laaj ñu ay naka lañ ko tabaxe ci yan jumtukaay ak ci yan financement yooyu yëpp di wane ne daal modèle la boo xam ne euh, bu am am solo la boo xam ne siggil na lislaam ndax comme ni nga ko waxee sëñ Mbàkke Buso wax na ni bi fi sëñ bi jógee ñaari mébét la fi bàyyi wala ba ñett benn bi mooy dem màgg moom naka jekk dafa noonu yitteem te am gàllankooru loxo yi mu nekkoon tax mënta man fa mun jaa dem waaye bi ko ñaareel ku ne xam na ne mooy jumaa ja euh, jumaa ji Tuubaa ji boobu loolu la fi bàyyi ci mébét bi ko ñetteel mooy université bi mu mel ni tey loolu mu bëggoon lépp sunu borom sottal na ko. Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa taxawaloon daara yoo xam ne nii daara alxuraan la jox ko ko ñuy wax sëñ Modou Matar Allé Lo waa kër sëñ Touba maanaam eh, ñi xam ne ñoom la sëqal sëñ sëñ Touba itam ñoom ñëpp ñu jébal ko ay taawam sëñ fal ab taawam sëñ Abdou Karim la tudd Cheikh Moustapha la ko jébbaloon sëñ Massamba sëñ Modou Mbaye la xalifam eh, tudd sëñ Modou Moustapha la ko jëbbal kilifa yëpp yëpp seeni taaw sëñ Modou Moussa lañ leen yebaloon mu boole leen ak ay wakaram jox leen Modou Matar ale ñu doon jàngee fii nga xam ne moo boobu sëñ mag fi de ñu doon jàngee fii nga xam ne fii la jumaa ji nekk tey yàlla dogal man mi sama waajur ci la bokk ak sëñ Cheikh Mbacke foofu lañ doon jànge ab diir ñu jël leen yóbbu leen tindoo di di ba daara ji sax maanaam mi ngi continuer ba léegi man naa ne ma nga ca Daaru daara ñu wax daara sëñ Omar Ndiaye mooy continuer loola sëñ Modou Mata boobu foofu la nekkoon ginnaaw bi bi mu wàccee bi ñu jox ko sëñ moo ko yor daaw la ne la wala daaw kon Serigne Jean nag jël da école boobu maanaam daara joojee moderniser loolu moo jur école yi Serigne Jean Mbacké Gaïndé kon doonul lu dafa jël école yi yi nga xam ne moom la moom la fi Cheikh Moustapha taxawaloon mu jël ko jox ko ñam ko joxoon day sëñ Cheikh Seye ak sëñ ma dem jël leen moderniser ko maanaam wutal ko programme wutal ko ay critères wutal ko sax ay autorisation autorisation d'enseigner wutal ko jàngalekat ya Cheikh Salih moom waxee waxeesu ko ku ne xam na li nga xam ne taxaw na ko ci taxawaayu xam-xam ci yoon wi gis ngeen daaray Serigne Salih yi ay nangami junni gone macha allah ni ñuy mokkale alquranul karim waaye ni ñuy jàngee xam-xam ci diir bu gàtt. man de ma gis ay xasaayit yoo xam ne ci ñoom lay jóge dangay ngay defe ne ñii moom ca université ya gën a mag lañ génne te xel koom gii lañ génne wala ci yeneen daara yi nga xam ne Cheikh Saalihu radiallahu anhu moo ko taxawaloon ñoom bi nga xamee ne dem nañ ba ba ba gisatuñ leen nit ñi nga fe xam ne ñoo leen fi ci seenu njaboot ñoom itam rek macha allah kenn ku ci dox nga ci jéego yoo xam ne ci wàllu xam-xam ma ma ma mëneesu ko mëneesu ko mëneesu ko jeexal ku mel ni Cheikh Mamadou Lamine di diir bi gàtt gàtt gis nañ yéene ji mu amoon ak taxawaay yi nga xam ne amoon na ko Cheikh Sidil Muxtaar gis nañ moom itam ci wàllu xam-xam fii joxe woon na ndigal Cheikh Mouhamadul Mountakha mii la digaloon ngir ñu taxawalaat liggéey boobee mu àndoon ko Serigne Bassirou moom Cheikh Abdoul Khadir naka noonu nag Cheikh Mouhamadul Mountakha bi mu ñëwee nag daal ni moom benn yitte bii moom la am di ma yitteem waaye nag ni ni ma ko misaalee ci njabootu Serigne bi nga xam ne ñoo togge woon jataay bi ñi toggewutub jataayam noonu lañ meloon waaye Cheikh Mahmadul Bachir kenn mënta wax ci xam-xam ci yoonu murid te tuddoo ko delluwoo ci Minanul Baqil Xadim waaye itam mënoo mënoo mënoo ak Irwa un Nadim kenn mënta wax ci xam-xam te delluwoo Cheikh Mahmadul Bachir kon ñoom ñi nga xam ne Cheikh Abdoulahi borom dër bi ñu waxtu ne dañuy wax ne bu fekkoon ne dañoo bëgg a misaal li ñuy wax formation professionnelle léegi waxtu bu ñu wax fii loolu laa leen wax dama naan moom doy na ci moom la war a jël moom joxe ko jàngat liggéeyam boobu ak taxawaayam yooyee te bu baax léegi yàgg na mooy li ñuy tuddee formation professionnelle ci jamono jii nga xam ne moom lañ nekk. Cheikh Ibrahim ku ne gis na ni mu taxawale yaatale liggéeyu sëriñ bi dem ba bitim réew mën nañoo wax ne mën ngaa dem ba Gabon ak réew yoo xam ne booba dem fa boo koy dégg dangay ngay defe ne feneen la waaye moom it booba li jamonoy doy doy waar def na liggéey bu rëy bu yaatu. ci yaatal liggéeyub sëriñ bi te liggéeyub sëriñ bi rek mooy mooy mooy mooy xam-xam. waaye nag kenn mënta wax ci xam-xam te tuddoo góor yàlla Cheikh Mouhamadul Mourtada maahid azhari li ci jariñ ci nit. ni mu yaatoo ci Sénégal ba bitim réew kenn xamut doxin woowu moom da nga naan loolu moom xar baaxi sëriñ bi la bi ma koy mujj xam rek daanaka téeméeri junni nit téeméeri junniy ndonga ñu ngi doon jànge ci Azhar waaye nag ci jamono ji Cheikh Mamor moom Cheikh Amadou Moutada ñëw gis ngeen ni nga xam ne ni la yaatale liggéey boobu bi ba nga xamee ne moom université la def ak ay ay ay ay centre de formation yoo xam ne mboole métier yi gën a xarañ te mënee su koo ñàkk ndax ma ngi fay tàggat ndaw ñi te amul ci xaj ak seen fu nekk la ko def ci biir réew mi waaye Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne moom itam moo njëkk a wuutu Cheikh Moustapha al Karim kenn mënta wax xam-xam ci Sénégal laay wax waxuma la yoon murit te tuddoo yàlla fayal nu leen ñoom ñëpp ba ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi moom jàpp naa ne sànceem bi gën a rëy mooy université bi ndax dafa bokkoon ci li sëriñ bi santaane woon te bokkoon ci ay niseram te jot a sotti sëñ bi laa tàmbali ko. am ci yéene lool waaye mu mel ne da ko ko fi doon bàyyil bi mu dikkee àggale ko àggale yéen wu rafet ba fi mu ne ñaa ngay tàmbali jàng ay nit di fa mokkale ay nit di fa amee xam-xam ay nit di fa amee ab yar loolu di loo xam ne lu sëriñ bi bëggoon la te neseroon ko ni mu neseri woon jumaa ji ak yéene jim ci amoon ni la amee woon yéene ci université bi wax ko ba tey tàmbali di ko waajal di ko jëndal ay téere bëggoon suuree son bépp kenn du wutee te xam-xam ñëpp di yem Tuubaa biñ tàmbaleeg léegi rek ni ko sëñ bi séddalee rek dafa gën a wanewaat yaatuk sëriñ bi muy mboolem bokk yi mboolem njaboot gi mboolem yoonu murit ñëpp fu ne am na ñu fa jógee man danaa fa gis ñoo xam ne fi ñu jógee ci Sénégal te loolu li ko waral mooy plateforme bu ñu ubbi woon ne képp koo xam ne rek bëgg nga ci bëgg nga bindu na nga bindu diir bu gàtt rek am nañ juróom-ñetti junniy nit yu ci bindu ñu tànn ci li nga xam ne ñoo mën a gën a ñëw fu ne lañ jógee ci Sénégal ñu di leen yar di leen jàngal na sëriñ bi doon yaree daara ju njëkk ya moom lañ fas yéenee fëggeewaat jëleen ya fii ni ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha waxe yar da ngi nii am na fi ñoo xam ne am nañ fi lu ëpp ñaar fak xisib ak nangam dafa lañ xam ne na ci ñoo xam ne li ñu jàppoon ne ci ñaari at lañ koy jàng weesu nañ ko daanaka li ñu waroon jàng ci ñetti at fii rek xaw nañ caa yegg weesu nañ ñaari at yi loolu gàttanduk sëriñ bi la te liñ weesu lépp dañ koy mokkal yóbbaale nag njàngin wi na mu war a amee ndax Cheikh Ahmadul Muntaxa daf ci soññee wax ne ku fi indaale wutoon njàngin woowee na ko dabu ko fi tàmbalee nag na ko yóbbaale nga xam ne moom dañuy jàng alxuraan ni ñu ko war a jàngee te mu yombul lool waaye di ko mokkal kon loolu mooy pàcc bu njëkk bi ci daara ji mooy waaye nag boo ñëwee ci njàng njàng mu kawe mi moom itam tàmbali nañ fii ci njàkkaarloo suñu kanam rek kulliya dirasaat islaamiyya lay tàmbalee ndax moo ci jiitu moom itam mbooloo ngi fi di jàng liñ doon jàng ca université yu mag yooyu nga xam ne sëriñ bi tuddoon na leen ba mu woote wooteem bi muy ca université yu mag yi ci dëkki arab yi gën a mage loola lañ fi jàng waaye nag di jàng nag lu dëppoo ak noonu sunu aada ak sunu cosaan waaye lu dëppoo te loolu mooy ni nal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jàngalee nga xam ne ki fi jàngee dana jàng la ñuy jàng ci bitim réew waaye nag dana ci boole jàng siiratu Cheikhul Khadim dana ci jàng jàng Sénégal taarixu Sénégal jàng joxraafiye Sénégal jàng sunu sunu sunu mag ñu baax ñi liggéey bu mag bi nga xam ne def nañ ko ci xam-xam lawate na xam-xam buñ bind ci làkk arab nga xam ne kenn xamu nu mu toll Cheikhuna Xadim def kenn mënu ko kenn xamu nu mu toll kon kooku mooy sëriñ bu mag bi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ardahu yàlla nañ ko yàlla fayal diirub li mu nekk ci kaw suuf nag xettali googu rek la fi nekke woon ci defar jaam ñi xiir leen ci jaamu yàlla tàggat leen ci liggéey ak fàggalu lew soññu leen it ci dimbalante teg leen ci yoonu jub yàlla defal ko dund gu barkeel goo xam ne daa fees dell ak ay njariñ ak xéewal ak barke ak jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ak gindi doomu aadama yi ba mu juloon kéemaan goo xam ne keroog ca atum wam sachin ci la bët gëj a gis dund gu mel noonu muy dund goo xam ne moom lay wax naan xus su xayaatan laa turaa li xayri mujizatan baanat li usni xayri sant ci boromam sant sant ki sallallahu alayhi wa sant sant ki xulafaa sant sant ki nga xam ne ñu baax ñëpp sant nañ ko sant ko bokk ci jaamu yàlla mooy sant seexul xadim jërëjëf borom Touba jërëjëf sëriñ Touba. Serigne bi moom noonu dañ ko war di sant waxtu wu ne murid yi waxtu wu dañuy wax jërëjëf Serigne Serigne Touba. jërëjëf Cheikhna Ahmadal Xadim jërëjëf Serigne Touba. noo ngi sant sëriñ bi bu baax di wax jërëjëf borom Touba jërëjëfati borom Touba di ko booleeg ñaari baat yi sañ Muntaxa sax digle woon alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Cheikhna Ahmad al Khadim kon alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëriñ Touba. jërëjëf sëriñ Touba noo ngi koy sant. di wax jërëjëf Cheikhul Khadim jërëjëf Cheikhul Khadim. jërëjëf Cheikhul Khadim jërëjëf Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jërëjëf Abdullahi wa Khadim rasulihi wa asna xadimihi yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla fayal te yàlla na yàlla def dëgg dëggi taalibe yàlla def dëgg dëggi murit te yàlla kattanal ñu ba nu jeexal sunu lépp ci liggéey Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ndax loolu mooy tax ak àdduna mooy tax ak àllaaxira yàlla na ko sunu borom defal ci barkeb sëriñ bi salaamaaleykum wa la war na say géwal yelloo nga mboolem bakk Tuubaa ngi raw na capital jumaam ju mag ji yaa ko yaal koraay ko raay bi am di daal gàddu nga ji raaya